Selon la Constitution sénégalaise, selon la Constitution sénégalaise ñett ñoo amul sañ-sañu déposer dossier Conseil constitutionnel ñett ñett moom bu ñu yóbboo seen dossier dossier ba jàll wala waru la jàll du ngeen ma laaj ñan ku njëkk ki mooy ki amagul fanweeri at ak juróom ki am 30 wala 29 ans yàkkam ci karawaat bu yóbboo dossier ñu rejeté ñaareel bi mooy ki amul nationalité sénégalaise exclusivement maanaam guinéen bi jàpp ni Afrique booloo bu yóbboo dossier am ñu ne ko warta jàll ñetteel bi mooy ki jot a def ñaari mandat yu tegloo ñett ñii seen dossier du jàll wala waaw la jàll maintenant mu des bu Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa nekk ci kanamu yoon yoon di ko topp loi électorale maanaam code électoral bi tënk ni élection war doxe loolu du du lu peuple bi décidé ay homme politique ñoo daje waxtaan xalaat et cetera ñun ñii sax changé nañ ci lu bari changé nañ ci lu bari ci dialogue politique national code électoral boobu moo yokk ci ñett yi ma wax te constitution bi wax ko ay mbir ay mbir ñoo wax ni ku ñu daan ku ñu condamné de façon définitive maanaam dem nga première instance ñu daan nga dem appel ñu daan nga dem cassation ñu daan la cour suprême pare ci say mbir justice su Sénégal wax na ne yow mii kat lañ la doon tuumaal ñun justice bi seet nañ ko am na lu ci am daan nañ la bii daan ñu ne am na xeeti daan yoo xam ne buñ la ko daanee sañatoo nekk électeur bay nekk éligible loolu code électoral moo ko suba suba suba bu homme politique yi dajaloo waatoon def dialogue national wax ni nañ ko ci dindi ñu yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko ñu daal di war a mën fu wante bi ma waxee ca mars ja ba bali yi tàkk ñu naan nañ leen lakk kër idée nangam nangam dama wax ni na Ousmane wax li ma waxoon bu dee deful dara na wax ne d'ici à l'extinction du soleil personne ne pourra prouver ma culpabilité parce que nag man loolu laa waxoon dama jàkkaarloo ak Ablaye Wade jàkkaarloo ak àddina waxuma woon rek ak waa Sénégal maa ngi wax ak sama partenaire ya nekk États-Unis dégg ne Ablaye Wade nee na luubal naa 40 milliards yu ma denc Amérique te ñoom ñu xam li ma am xam ni ma ko amee du bàyyi. Ablaye Wade puisque kaalawu na def affaire u màgget yooyu ñu ormal ko mu yëngal aras du ma ko def du ma ko def je me suis défendu et je l'ai dit au commissaire Assane Ndoye quand il est venu me puisque euh, quand il a fini l'enquête vers 13 heures, il a dit dans son PV, nous n'avons aucune preuve à charrier contre le Premier ministre Idrissa Seck dans le cadre des chantiers de Thiès ñu woo ko ne na fa toog quand même takkoon naa samay bagage ba pare ñu ne benn bulletin de renseignement moo ñëwaat ne on a trouvé chez moi des armes des sommes d'argent incroyables et des appareils sophistiqués d'ailleurs loolu Ablaye Wade am na ñu bari ñu ngi ci saaga ndax nee na leen lu tax avant ngeen ko yóbbu perquisition yéen ñett yooyu yëpp am ngeen ko mënoon ngeen faa def ay armes def fa xaalis def fa machine indi télévision ñu filmer ko ngeen ne moom la mais ngeen bind ko ci seen bulletin bi yóbbu ko perquisition ñëw naan ma dara new yéen danaa ma ne ko yàlla dafa xarañ sëriñ Cheikh daf ma doon wax jaam bi bu bëggee noppalu day nangul yàlla xarañam ci amal namm-nammam ci jaamam bu bëggee noppalu nangul yàlla xarañam ci amal namm-nammam ci jaamam tus la ci mënul dara tout chef d'État qu'il était, je lui ai rappelé son origine et sa destination sous peu. ñu ne tegginuwul ni ma ko waxee puisque kenn du wax mag ancien spermatozoïde et futur cadavre ma ne leen circonstance yi ma ko waxe bu dellu si waatoon ma wax ni ko yàlla waxe te moo gën a ñagas ni ma ko waxe am déet nutfatan ida ah jeex na booboo gën a ñagas na ko firi am firi ko firi voilà firi nutfatan ida tumna kooku bu ma ko firee léegi ñu bari benn waaye mus na ma ni yow dégg naa la léegi xat aflahal muminuun nangam nangam léegi boo eggee ba ci walladina hum li furujihim xaafizuun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum bu ko firi sama kër ndax maa malakat ci moom mu ne ko ma mane ma ne Serigne encore raison nee na Sénégal aada la xam xamuñu xaqiqa moo tax ñu bàyyi ruus def éducation sexuelle seen kër ruus nañu ko te pourtant mag ñi bind lu yéene waruñoo xaar ba tubaab yi ñëw naan ñu éducation sexuelle nangam nangam ñu koy soxla moom daf du ko daan defal. daf ñu ko daan defal dana waaja naa jóge daara rek ñu jox ko benn soxna xamul lu mu war a def ak soxna si moom jóge na daara c'est pas normal c'est pas normal <coughs> donc je lui dans mon intervention en mars dernier, si tu n'as rien fait, dis-le. Si tu as fait, demande pardon. Ne sois pas orgueilleux. L'humilité est la mère de toutes les grâces. L'orgueil est la mère de tous les péchés et de tous les échecs. nit warul réye juum naa baal leen ma qad aflaha almuminuuna alladina hum fi solatihim xaashiyaun loolu la yàlla nee na bienheureux sont les croyants qui sont humbles dans leur relationnel salaat mu ngi signifier jonction imaam yi ñoo koy firee julli day firi julli bu dee diggante jaam bi ak boroomam la wante bu dee diggante jaam bi ak moroomam relation rek lay firi loolu lañ tàmbalee alladina hum fi salaatihim xaashiun walladina hum ani llahwi muridun walladina hum li zakati failun walladina hum li furujihim xaafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum gayru malumin walladina hum li amanatihim wa ahdihim raun ceux qui préservent les dépôts à eux confiés et qui honorent leurs engagements looloo manqué Sénégal ceux qui préservent les dépôts qui leur sont confiés et qui honorent leurs engagements que les dépôts soient matériels ou immatériels et surtout lorsqu'ils sont immatériels mais confiez votre secret à quelqu'un balaa ngoon nga dégg ko secret de deux secret des dieux secret de trois secret de douze la tubaab yi wax maanaam boo wéeteeg nit wax ko sa secret loola mel na ni yàlla rek nga ko waxal boo bu ngeen nekkee ñett nag moom melal ni ñépp nga ko waxal mais Sénégal bu njëkk bi sax wóorul koo waxal secret bu génnee bëgg naa wut daraja ca xam ga mu njëkk xam ñi ci des li xew fokk mu jéem ko feeñal pour yëkkati maqaamaam te xamul ne ba muy def loola ma ngay nërmeel darajaam walladina hum li amaanaatihim wa ahdihim raa'uun walladina hum li amaanaatihim wa Malheureusement, on va maintenant reprocher à Idrissa qui a conscience que la consultation peut soumettre à risque les secrets qu'il partage et qui donc s'abstient de partager cette information pour la protéger et la préserver on va non sama xel rek doy ma et le jour où vous Sénégalais vous serez dignes de confiance eh bien je partagerai les informations avec vous hier j'ai réuni un cercle restreint de mes responsables là à Bandia, dans la forêt, dans ma ferme, entouré de 50 hectares de vide, j'ai pris une décision. Et je le dis, cette décision-là ne doit pas être publiée. Je l'ai lue ce matin dans la presse. C'est la nomination de Yankoba Diatara comme directeur de cabinet. Maintenant, est-ce que c'est lui? Tu n'as pas à être d'accord. Tu n'as aucun pouvoir sur ma décision. Tu, tu... Qui a fait la fuite? Il était dans ce cercle restreint des responsables qui m'entourent. Et vous pensez que je suis en sécurité? Si je dois partager avec eux des secrets d'État que je partage avec le président de la République. Et c'est pourtant ça qui aurait été normal. puisque ce sont eux mes compagnons les plus proches. Mais je ne le peux pas. Et c'est ce que nous avons fait, Macky Sall et moi, pendant le dialogue politique national. On s'est retrouvés chez la mère de Marème Faye Sall, puisque j'avais refusé d'aller le voir au palais et j'avais exigé qu'il vienne chez moi.

de me voir aller lui rendre visite au palais. S'il a besoin de moi, c'est lui qui fera le déplacement au pouvoir. Et la solution qui a été trouvée était de dire, ok, on aménage chez la maman de Madame Faisal, à qui au demeurant, je rends un vibrant hommage. Moi, je ne la connaissais pas très bien, puisque du temps du SOPI et du PDS, C'est Maki Ousmane Masek Ndiaye Amin Total qui était mon, euh, disons, ma garde rapprochée avec les FADA et, et quelques jeunes. Et Alun Sow, le, le, ministre Alun Sow. Et c'est eux qui venaient plus fréquemment chez moi. Ils, connaissaient Ndaï Penda. Moi, j'avais très peu d'occasion de me rendre chez eux, donc je ne connaissais pas leurs épouses très bien. Mais je l'ai découverte, cette femme-là, dans son engagement, dans son intelligence sociale, dans son humilité d'exception. Mais je lui ai dit, à la limite, si c'était toi la candidate, j'aurais eu du mal à te refuser un cinquième mandat. Tellement